lagal te wey nit balaa jiituy kemam xaw a dee xëy jiitu say kem te deewoo wett kat jafe na ku bëgg am lu rafet day muñ def lu rafet xamal ne kat saxle gàncax goo jiwul jafe na nu ñépp def ku ko def doo man lu yam fa ñu yam ku bëgg a raw def lu mbooloo mépp naa jafe na lagal wey nit balaa jiituy kemam xaw a xëy jiitu say kem te deewoo wett kat jafe na ku bëgg am lu rafet day muñ te def lu rafet xamal ne kat saxle gàncax goo jiwul jafe na nu ñépp def ku ko def doo man lu yam fa ñu yam ku bëgg a raw def lu mbooloo mépp naa jafe na jaamub yàlla di liggéeykatub yonentam nga xam ne sëñ Tuubaa ci jublu ak gëstu boo xam da ko defoon ci période màggal mu tudde koo sant sant ak yenn bind yoo xam da koo bind mu nekk ay xutba nga xam ne par ajjuma la xanaa sant rek alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala afdal almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabiahum bi ihsan ila yawmi ddin noo ngi nuyu bokk yu baax di leen sant ci taxawaay bii di leen ci soñ ndax eh, nit ki bu la mbiram safut doo ko safo lépp nag day mel ni safoo mbirum Sëñ Tuubaa rek lay tekki ndax moo tax ngeen di tànn ñu ngeen jàpp ni ñi ngi ci yëngutu ngir ne da leen di delloo njukkal ak di leen sargal loolu ku ko def ko ne murit yëpp am nañ lañ la jukkal nu del rek di leen gërëm di leen sant ñaan suñu borom mu dool leen ci ndimbal defal leen ci tawfiq defal leen ci mucc ak xiwal jërë ngeen jëf asalaamualeykum wa rahmatullahi taala barakaatu. moom sëñ Mouhamadou Moustapha Fadil moom lañ euh, waxoon ci sargal bi nga xam ne mooy ci ñi nga xam ne it ci liggéeyal alquran ci la ñuy liggéeyal sëriñ bi ndax sëñ Tuubaa kat waxoon na ko ne. bu ngeen bëggee laa xam samay ñoñ na ngeen xool ñoñi alquran mooy ñooñ ñi nga xam ne ñoom la yàlla di gërëmloo yonent bi di gërëmloo leen moo tax ma leen di gërëmloo kon xam naa dañuy woo sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke mu sëñ Mouhamadou Moustapha Fadel mu mel ne moo fi teewal soxna Musli ànd ak délégation bi mu àndal bu ko defee moom dañuy woo sëñ maam Baara Mbàkke ma mi nga xam ne moo yor internat bi ñuy wax maam Astawaalo Mbàkke ca Daaru Tanzil ngir mu jox soxna Musli ci ci turu soxna mu mu jox ko sëñ Mbàkke euh, cadeau bi nga xam ne moom lañ ko war a jox bismillah kon sëñ bi asalaamaaleykum wa di jël ci turu soxna muslimatu Mbàkke bintu nga xam ne lañ doon sargal mu yabal ñu nu ànd ak rakkam xaritam di Serigne Mbàkke ak mboolem nag waa daara ji daaray alxuraan ji ak daaray xam-xam ji ak école bi fa tabarakallahu ni ko mbokk mi doon waxe léegi rek soxna muslimatu day soxna soo xam ne wax dëgg yàlla sargal gi ñu koy sargal ak njukkal gi ñu koy delloo njukkal ngir taxawaayam bu mu am ci liggéey bi lu ko mat sëkk la ndax ku nekk xam na ne toll na ci jamono joo xam ne bari na lool ay ñu toll ne moom mel ne moom te yàlla dogal lii mu nekk ñoom nekkuñu ca kon boo gisee nit koo xam ne dafa nekk ci lu baax di góorgóorlu nga fekk ko ca waar ne ko waaw góor yaa ngi góorgóorlu waaye yokkal sa góorgóorlu loolee lu sedd xolm la tey lu muy bége la kon daal soxna si nee na ci turam moom ak turu ay kilifaam tàmbalee ko ci sëriñ Abdou Khadir mi nga xam ne moo fa nekkal sëriñ Modou ak mboolem njabootu sëñ Modou bu sa jàng gépp góor ak jigéen ak soxna yaak ñëpp soxna si nee mi ngi leen di delloo njukkal lii ngeen ko njukkal te di leen feeñalal mbégte moo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fenn fu mu yem ci yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba mi tax ngeen tànn ko ak alquran ji muy yëngu ba tax ngeen rafet ci moom njor ba terale ko teraanga ji yéen it yàlla na leen suñu borom fay ngeen ji ak fay te teral leen ngeen ji teraanga jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa koo xam ne li ñu waxoon rek muy amul benn xar baax bu gën a kawee am bindum boppam amu ko amul benn euh, karaama it bu gën a kawee mbindum xam ne ci la jommale képp ku génn ci moom te moom nag ndeysaan macha allah ni ko li ko xam rek mooy jàngalekat lu ñaar yoo xam ne lu dañ waar la te lu am solo la macha allah moo tax ñu jox ko cadre bi nga xam ne ñaanub sëriñ bi la ci sëñ bi di ñaan aw yu baree baree bari ci jàng alxuraan ak bi ci jàngale ñu ko waxee ci laawa safaru صلاة باق بتسليم بلا عدد على نسير بسير قادر مدد صلاة باق بتسليم بلا عدد على نسير بسير قادر مدد فداري الله في الدارين كل أما وساقهم لسوى ما ساءني ببدي سوى ذاتي ووجهه لمن خلوني ولي قد كان بالسبب بدا لي العام أن الله جاورني وخاد لي منه فضلا ليس ذا عددي مد الإله لنا أجلا بلا عدد وكان لي ولف الأعداء بالسبب سقاني السفر زاحت ما لا يراه الدار كتب وقال لله ما أهوى بلا نفد جاورت ربا كريما زال لي قلمي بالمصطفى علق العلياء بالسند نبينا أحمد المختار واثقتي وذكر ربي معاه والمنتقى سندي نفى إلهي مثل الإخراج بالفند عاجبت لله من لقو ومن لعب وسال عمري ربي عن فرا وددي تسليم باق كريم قاد لي كرما على نصير كثير قاد لي مددي taxawal jataay bi di leen wax sunu mbégte ci teraanga jure yi ngeen di xam ne teraanga ji yëg nañ ko lool ñoo ngi ñaan barke Seexul Xadim mi tax ngeen def ko mu gën a yëkkati seen jëf ji te gën leen a kaweel mbooloom ba fu ngeen bëgg a àgg ci liggéeyal Sëñ Tuuba ngeen àgg fa ba àgg fa kaweel seen jot barke Seexul Xadim xamal na bëgg nañ ci lool rëy ne lool ci ñun it ñoo ngi ñaan sunu borom nangu leen liggéey bi barke Seexul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aarab yi bind ñuy jàng xasaayit te xamuñu ne moom mi sax moo ko bind nga xam ne mbind la moo xam ne xasaayit doo gis ne daanaka mën nañoo jàpp ne bind na ci moo tax ñu sargale ko lii di ñaan yàlla it eh, yàlla subhanahu wa taala defal ko ci daraja yi xasaayit yi lépp loo xam ne bëgg na ko ñu mu may ko ko ci daraja Serigne Touba sëñ Abdou Khadir moom it nag ñu mel ne eh, moom mi koy jox moom it ñoom ñaar day mel ne dañoo bokk benn tool bu ñuy kii. benn tool bu ñuy euh, liggéeyee mu mel ne sëñ Lamine Saaw da koy bind ci mbind mi ñu xam ñun waa sëñ Abdou Khadre leen di gëstu di bindum bindum sëñ Tuubaa ci mbind mi nga xam ne moom la waa bitim réew xam mu mel ne kon ñoom ñaar bu ñu leen boolee mooy nekk benn jëmm joo xam ne kenn leen teqale moo tax ñu jox ko neexal bi di ñaan yàlla it yàlla doon loo xam ne lu sax lay doon ba faaw ci barkeb sëñ Tuubaa asalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu liggéey bi mooy liggéey ñu bind xasaay alxuraanu am naa ci diir ndax 69 mooy sama kayu njëkk 69 laa jox sama kayu njëkk si Abdoulaye mu toog ci classe bi ci biir si laa jox sama kayu njëkk mbind mool mi boo ko tawee def ak léegi ren la ci ñeent fukki at am na lim xam naa li mu demee nag li muy yàlla ci am ab daa kastañ Tuubaa waaye mu wóor station liggéey sim lu baax dama wàcc bu fekk maa ngi wuy liggéey sim taal moom laa yéene dama tay dama yokk la nga xam ne sim tubaab moo la wax suñu sallallahu alayhi wa sallam ba ne faratu bi xëy na laa saaniye laa mene xëy na sax saaniye yaa ko bëgg na ci biir xasaay yi loo xam ne kenn dafa koy man incha allah moom laa yéene jël naa ngi dund ma tay dama tay kum yokkat dara yëg ni yaay ko yor dara ku ne nga naan maa rek maay ki waaru moo dàq waare ba tax ñu ko ci waar wu sëñ Tuubaa wasalaam ko ñoom nag tànn ñu dara ci dëkk bi lu dul jumaa ja ngir di ko setal nga xam bu setut nañ war a jaamu yàlla dëgg dëgg dëgg du a ne moo tax ñu tànn jumaa di ko setal ak di ko sellal moo tax ngir yokk leen nag ne duñ leen yërëm ci liggéey bi de ndax seen laat ma waxoon rek am murit buy liggéey jël sa yërëm ndax boo xalaatee pay ga day tax moom mu gën a góorgóorlu waaye li ngeen di wax waa leen góor jërë na leen bi gën a fay incha allah moo tax ñu jox leen lii nag symboliser ko leen ci liggéey bi rek kon mu mel ne sëñ Xaadim mu sëñ Moustapha mu sëñ Afiya moo koy jox neexal di ko sëñ Moustapha Bousso ngir ci turu waa kuréel liggéey ku tedd ki di ko jox ci di ko jox kuréelu jannat bi nga xam ne ay góor laa ko jigéen ñëpp takk takkoo doon benn ngir liggéeyal sëñ Tuubaa ci jumaam ji. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara. di leen ndokkeel bu baax ci xew-xew bu am solo bii ñu bokk daje ñu teew fi nag ci turu mboolem daairatu asxaabul jannati bi nga xam ne ñoom ñooy saytu mboolem luy setal jumaay Tuuba biir gi ak bitti gi seenu liggéey lépp jëm ci loolu te ndigal li sunu borom dogal mu bàyyi ko woon ci Serigne Touba Cheikh Saliou 1990 90 ba Serigne Saliou nekkee xalif général des mourides ba am ñetti weer moom lañu joxoon ndigal li te ndigal li mu tegoon ko ci loxo yi sunu wayjur Serigne Bousso Bousso um Serigne Mbacke Kane rahmatullahi alayhi booba ba léegi nag njaboot gi bayu wuñ benn yoon ci jàppal tànk liggéey boobu ba ni ko yàlla moomi moom doomam ji nga xam ne it moo nekk ci bopp njaboot gi sëñ Babacar ataalallahu umarhu wa baqaahu fina wéyal moom it jéegoom yu am solo yooyu nga xam ne way jur wa tàmbale woon na ko jokkal kóllëre gi way juri kon noo ko fi teew ci turu mboolem asxaabul jannat bu mu tuddee sëriñ bii ko sëriñ saa tegoon ci loxoom ak doom ji ne ci bopp bi yóbbaale na mboolem ñi ci ay góor yóbbaale mboolem soxna yi mboolem kuréelu gi nga xam ne ñoo tuddee seen bopp la génn ko tedd ki te seeni jëf ak seeni melokaan màndargaal ko lool noo ngi leen di sant bu baax ndax lii ngeen def eh, nit ki bu la yéegee deseelootu la dara waaye bu la yëgut bu neeraa teg naa la fenn wala jàpp naa la dara boo dee boroomu xel da nga xam ne jàpp la yëgu la te li tax ñu sasoo li di ko def mooy tërbiya mel ni mag doon la ko teg nee na boo jëlee taagi da nga koy tudde taxan raagi nga jël ko tudde ko root baagi nga tudde ko buub mooy li wax bale yaagi nga tudde ko yalwaan loolu nag nee na mooy tarbiya moom tàggu àggu ca taa ter defu ko tarbiyatu waaye tarbiya la ko tudd waaye ni mu ko tekkee moom nee na yent yooyu benn bu ci nekk rek kuréy du ko def nee na benn bu ci nekk kuréy du ko def moo tax nag ñun ginnaaw liggéey bi sëñ bi jëmloo nañu ci wàllu setal bi dañ ci sant yàlla bu baax xam ne xëy na ko ci tomb rëy nekkoon ci moom sëñ bi desee jubluwaale ba koy dindi ci moom moom set ñoo ngi si sant bu baax di leen gërëm di leen ñaana it seen jubluwaay yéen it suñu borom àggale leen ko te matali leen seen liggéey lu ci dëng rek ci wax ji suñu ñàkk mën a wax la ak suñu néew xam-xam lu ci jubit ñoo ngi koy sant yàlla bu baax mi nga xam ne dara tewu ko ñoo ngi koy ñaan mu teewloo ñu ko ay déwén yu bare bare te nangul ñu wallahu waliyu dalika dañuy woo sasatu Al Euh, ñu jege si jox leen seen sargal incha di woo suñu euh, mbokkum daara sëñ Sam ngir mu ko waa al muassasatu al wafa seen sargal bi nga xam ne dañ koy ci liggéey sëriñ bi ci tasaare xam-xam. bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah yi ñu ngi siyaare ñëpp di balu àq ñëpp di di jël nuyoo yu sell ci turu mu assasatul wafaa bi xuquqil iman di ko teg ci loxo yi mbooleem ku nekk fii ci jataay bu sell bii mu mel ni lii ngeen def tey dafay lu rëy da ngeen di soññu mbokki taalibe yi nga xam ne rawatina mbokki jullit yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu xam-xam mu assasatul wafaa nag benn bànqaas rek bu nekk fële ca Daarul Muxti te jublukaayam mooy liggéeyal sëriñ bi ci xam-xam ni nga ko waxee léegi ba tax na ñu ngi ci ñetti téeméeri conférence yu bokkul lu ci ëpp yoo xam ne xooluñu ci jan tarixa nga ne xam-xam daal la ñuy wër xam-xam daal lañuy tasaare loolu moo tax bu ngeen ñu joxee lii day mel ni da ngeen ñuy soññ xëy na kàddu yu du lay war a doon ndax lii moom amul du ko gën a kawe ndax boo ne ci yoon wi di liggéey ba ñu woo la fii nga xam ne fi la yoon wi soxi ko mën nañ ne muy Daaru Xudduus ci barab bi nga xam ne jàkk ji nga xam ne fi la sëriñ Touba njëkk gisee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga ne ci ab toolam di liggéey bañ woo la fi dana décoré dañuy wax ne lii amul lu ko ëpp solo waaye rawatina weer wi nga ko defee nag muy weeru Serigne Touba yi nga xam ne képp ku añ rawatina mbokki taalib yi ci weer wi la sab añ bàyyi ko kon daal la waykat ba waxoon bu ñu leen doon delloo njukkal moom la ñuy wax ne lawaykat ba waxoon ba muy tagg mbokk ma di wax ne ko law kaana yuhda al insaanu bi qiimatihi la uhdi laka dunya wa ma fiha mu asatul wafa daal bu amoon lan lu mu leen mën a jox daf naa leen rek lépp lu baax ngi doon delloo ngeen ko jóge wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waajur suñu mbokkum taalibe koo xam ne mën nañoo jàppale ne dundam gépp da ko jox sëñ Tuubaa wala kattanam gépp sax la ñuy wax da ko jox sëñ bi ba tax bépp murit boo xam ne jàmmaarloo ak moom wala nga gis ko war ngaa mën a taxaw wala war nga mën a ñaanal yàlla yokk ak wér te yàlla wéral ko te dolli ko kattan ndax mën ngaa jàpp ne ñun sax xaj na duñ ko xam waaye ñi nga xam ne ñooñu mag mën nañu xam nga xam ne ñoom xam nañu ne bañ doone tuut tànk ba dañ màggee dañ koo gis muy liggéey seen tubaab jàng xasida muy Baye Ablaye Niang ñu xam naa buñ ko mënee jege si li allah ñoo sëñ Ibrahima Fall Lamp Mbàkke moom sëñ Mouhamadou Mountakha Euh, ngir mu jox ko euh, neexal boobu noonu. ci pàkk bu tedd bii nga xam ne bokk na ci pàkk yi mu jëkkate yëkkati matu yonent bi salaa salaam ci mbindam xadimal Mustafa defal na ko Cheikh Modou Moustapha fii ci gàmmaat bi moom mii defal na ko si Modou Fadal defal na ko Cheikh Modou Basir ak njabootu Sëriñ Tuubaa benn jotaayam bi wax na ni gannaaw nuyu akub siyaare yéen a waa ci bokk jànkatam yëpp. di leen yàlla yiw wi tey yàlla na ko bokk ak ñoom di ko bokk ak am njabootam mbokkam yéen ko daan àndal itam sunu borom wàcce li ñu liggéey bu ma sànni yasal jëlaat ñu ne yaa mu taali ñooñu yiw yàlla leen fekk fa ñu tëdd ci barkeb Sëñ Tuubaa ñi mu fi desendeel ci bokk jàngkat yi sunu borom nangu seen liggéey te ful ko yéen mbooloo mii nag gannaaw nuyoo bi mu tàmbale ko Cheikh Modou Mountakha ja ba mboolem ba ci. yéen ñi ak si taxawal lii alaaji nee na mi ngi ñaan ci barke bi lu ma sa wax seen liggéey bii yal na kawe seen njoot kawe njootal ko koo xam ne am nga ci liggéey bii lii réy na ci moom réy na ci njabootam damay bañ a guddal réy na ci mboolem lislaam bépp réy na ci yoonu murit wépp waxuma la weer yi nga xam ne fi ngeen ko defe ak barab bi ngeen ko defe maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi la fi la fi la fi la fekkoon ku tedd ku tedd ka ànd ba mu waajal ko mu gën liggéey liggéey kon nag ngërëm nga xam ne am na ko yàlla na am lu ko kawe nee na fa mu yem yàlla ngeen fa tàmbalee. addiya ji nga xam ne moom na ko kuréelub liggéeyal ku tedd ki jox ngir sargale ko comme ni ñu ko waxoon ci Baye Ablaye rek ñoom ñëpp ñoo bokk benn tool bu ñuy liggéeyee ndax sëñ bi moo yaatal ab toolam ba kenn ku ne xaj te liggéey liggéey bi ñu tànn liggéey sëñ bi mooy jàngal ko li nga xam ne moom la waxal boppam ak may yi ko yàlla may moo tax ñu jox ko euh, sargal bi addiye ji jox ko ngir jëmmi sëñ Tuuba ak jëmmi xasida yi te ñaan yàlla yàlla yokkal ko te wéral te yàggal ko fi ba lépp loo xam ne bëgg ko liggéeyal sëriñ bi nga mën ko ko defal. ziar yi mboolem mbooloo mi fi daje ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp maa ngi leen di nuyu te leen jox seen wàccuwaay. te di leen biral sama yéene ci ñoom joo xam ne ndott eh, naa ci wax ko ci sama sama làmmiñ waaye yàlla xam na ko te yàlla na leen ko jotale kenn ku nekk ci yéen yéen nag mbooloo mi nga xam ne yéen a dajaloo fii sos lii yàlla na ko sëñ Touba nangul boppam boole ko ci jëf yi mu gën a xemmem ci barkeb sëñ Touba. waaw man nag euh, damaa mënuwut wax waaye euh, maanaam sama xol sedd na seddaay boo xam ne ni ma ko waxee woon rek lot lot naa ci waxtu danaa ay bayit yoo xam ne dama leen koo jox addiye ak képp ku ko dégg ku dugg sa nopp ci dégg wenn xaraf wu ci ne xaraf woowee yal na yal na na la wommatal njëriñu xasaayid yépp mu wàcc ci yow ci barke Sëñ Touba bismillahi rahmani rahim sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xalili wa sallam albaqi ajabani xayru baqin fi أجابني الخير الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا بارك برم تبع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki talibe yi noo ngi leen te di leen siyaare te di leen ndokkeel ci weeru tedd yi waaye ñoo ngi yëkkati kàddu ci turu kuréel liggéeyal ku tedd gi kàddu yooyu nag kàddu sant la ak kàddu yi ñaax ak kàddu yi sàkku ñaan la ci cant ga moo di sant a Cheikh Mouhamadul Muntaxa Bachir moom mi nga xam ne nu bi mel moom ci ndigalam ci ndimbalam ak ci ay ñaanam jàpp na ci ci wet gu ne waaye di sant kenn ci moom di rakkam di léppam moom it mu jàpp ci bis bi lool di sëriñ Hamzatu Mbàkke ibnu sëriñ Suhayb waaye mu am ñeneen ci njabootu sëriñ Tuubaa bi ak taalibe yi ñoo xam ne jàpp nañ ci bis bi ba mu mel ni mu mel kon noo ngi sant ñu ñëpp di sant waa presse bi wàccaay yi def ci bis bi doon ko ko waajale gis nañ ko seen teew ci bis bi ak niñ ko jëmmale ak niñ ko jëlee ci xarala yi ñu yor loolu lépp gis nañ ko kilifa yi wuy si woon te kan ci jiital di Cheikh Ahmadou Rafahi Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Fadal moo kilifa yi wuy si yëpp noo ngi leen sant ci sag bi nga xam ne sagal nañu ko waaye it mbooleem bokk taalibe yi nga xam ne mbokki jege ñaale la moo xam mbokki dëkkandoo lañ moo xam mbokku taalibe gi mooy mbokk ñu boole mu Serigne Touba ñooñu ñëpp ñu ngi leen sant ci wuy si nga xam ne ni wuy nañ ko ñi doon taxawu jongante yi moo xam ba alquran bi wala bu ñëpp ñu ngi leen sant ci coono yin ci toggoo waaye noonu la ñu bàyyi Serigne mu fay la ñu di leen xamal ne kuréel gii kuréel liggéeyal ku tedd ki ay ndaw lañ yoo xam ne dañoo taxaw temm ci sàmm ndonoy sëriñ bi ak yaatal ko ak leeral ko ci mbooleem fu lii rek du seenu liggéey waaye ni ngi wër ci barab yi Sëriñ Tuubaa jaaroon di fa def ay gëstu di fa jële ay maalumaat di ko dajale di ko bindu ak di ko filmer def ko ay vidéo ba ko loolu ku ne man ko mën caa jote loolu ci seen liggéey la bokk Rabia Safar bii nga xam ne taxawal nañ yéen ñi nga xam ne yéen a bokkoon ci joŋante yi danañ leen leeral bu baax lan moo waral ñu def joŋante yi ñu organisé woon bu dee bu alxuraan dañ cee jubloo soññe ndaw ci ñu gën a jàpp alxuraan gën koo fonk gën cee jox gën koo jox yitte te gën cee sonn te xam ne seen lépp ci la nekk alxuraan mooy buntu xam-xam lu la di gëstu ji ci xam-xam bu noppee ci alxuraan loola dana yomb ci moom baneen jongante bi nga xam ne moo jëm ci xasaa yi dañu koo def ngir ndaw ñi gën a góorgóorlu ci mbindum Sëriñ Tuubaa ndax ne karaamati xattu yadi fi xidmatil muayyadi wa kaana li bil afshadi allahu muulil karim sàmm di ko jàng di ko sellal di ko sentetal ndax wasiila la wu nu mën a àgg ca sunu borom bu dee bu xayma xam-xam bi ñu doon def xam nga xajimee bi dañoo ci Cheikhul Xadim ñu yokk seenu gëstu ci yoonu murid ba fu fi ndaw dem ëllëg ci àdduna bu ñu laajee dara ci yoon bi nga bañ a sëkk waaye nga siggi tontu tontu yu leer yoo xam dafa jëm ci yoon wi loo xam ne mënee suula koo ñàkk xam ci am murit ci yoon wi ndax dem ba génn réew mi ñu dina laaj Sëriñ Tuubaa mi nga gëm fu mu gënee àdduna mënoo koo tontu lu way juróom tudd mënoo koo tontu la nekk kañ ko sanc kañ ko sos mënoo koo tontu Tuubaa gi nga dëkk ko sanc mënoo koo tontu loolu du ab sàkk ci nit ki nga xam dafa génn kon noo ngi leen ñaax ngeen yokk gëstu bi ci téere yi nga xam ne dañ ko bind ngir xam ne yoon ak xam ne Sëriñ Tuubaa muy Minanul Baaqil Qadiim muy Irwaa'un Nadiim muy téere yu dul yooyu ci nga xam ne manis la cee gëstu ngeen gën cee soññu ñu wax leen ne ngeen waajal bu déwén bi incha allahu moo mboolem li nga xam ne mosuñoo bokk ci benn musaabaxa sant kenn ci mbokki taalibe yi koo xam dafa jàpp ci liggéey bi muy sëriñ Fallou Gueye borom Asna Khadim di ndaw loo xam ne dafay bind ay xasaayid ci loxol boppam waaye it di ko móol ci xeetu móolin loo xam ne wu sell lay doon wu rafet lay doon te wu garanti lay doon mu boole ca it di defar ay cadre ci defarin yu mucc ci ayib fii exposé ko da yëpp am na mat bu faw sey ni nuur daaray ni muqaddimatul xidma ak xeer bu ci nit soxla waxaan xaqan tasiru asir mafaatifa bi yëpp mi ngi ci bu ci nit soxla mën naa jokkoo groupe asna xadim sëriñ xaalim gay mi nga xam ne ni moo géré liggéey bi moo ko fi teewal kon sëriñ xaadim ñu ngi la yóbban sëñ Fall ak cant ndax joxe na xasaayid yu bari yoo xam ne nii da ko joxe na ay xasaayid yu bari yoo xam ne nii da ci mag ñin doon sargal muy jànkate xasaayid yi ñin doon sargal ci ñoom la ko jëmee kon loolu ñu ko ji sant di ko gërëm di wax ne fa mu ca Dakar mooy Grand Yoff taxawal garage Sëñ Murtala ci ginnaaw daara yi Sëñ Fallu moom Sëñ Sohaybu képp ku yitewoo ab liggéeyam kon mën nga koo euh, fekk foofu ñu fàtte woon it ci kilifa yi nga xam ne dañoo jàpp ci liggéey bi lool muy Serigne Abdou Samad moom Serigne Sohayb yëmut ci jàpp ci waaye teewal na fi boppam ñëw na fi ci jëmmi boppam ci liggéey bi delluwaat ba noppi jàpp ci ñuy sant it Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne it yónnee na ci liggéey bi teewal na ci lu am solo di sant it Serigne Makhtar ñi ñëpp jàpp nañ ci liggéey bi jàppin rafet ñu leen di bàyyi ak Serigne Touba ngir mu fay leen ak Cheikh Abdou Lahad Mbacké ibnu Serigne Cheikh Gaynde da koo yàgg ànd ak ñun eh, ca at mu njëkk ma ba ca at mu ci topp ba mu ne mu yokk loxoom ci li nga xam ne nii mu ngi koy def ci liggéey bi kon noo koy ñaanal ngërëmul sëriñ bi ak pay goo xam ne du doon mukk kon nag ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci jongante yi ca bu njëkk ba ca kër Sëriñ Abdou Samad muy demi-finale ba. ñooñu ñëpp la ñuy jox seeni neexal tey ak ñi bokkoon ci jongante tay bi ñi nga xam ne nag ñoo jël euh, première ak ñi jël deuxième ñoom ñooy ëppale ay neexal ci ñi nga xam ne bokk nañ waaye jotuñu jël première wala deuxième kon xam naa ni mën nañoo tàmbali di woo ñu daje ñun ñëpp ku nekk ñu jox ko. lagal te wey nit balaa jiituy kemam xaw a xëy jiitu say kem te deewoo wett kat jafe na ku bëgg am lu rafet day muñ te def lu rafet xamal ne kat saxle gàncax goo jiwul jafe na nu ñépp def ku ko def doo man lu yam fa ñu yam ku bëgg raw def lu mbooloo mépp naa jafe na lagal wey nit balaa jiituy kemam xaw a xëy jiitu say kemte deewoo wett kat jafe na ku bëgg am lu rafet day muñ te def lu rafet xamal ne kat saxle gàncax goo jafe na nu ñépp def ku ko def doo man lu yam fa ñu yam ku bëgg raw def lu mbooloo mépp naa jafe na lagal te wey nit balaa jiituy kemam xawa dee xëy jiitu say kemte de wett kat jafe na ku bëgg am lu rafet day muñ te def lu rafet xamal ne kat saxle gàncax goo jafe na nu ñépp def ku ko def doo man lu yam fa ñu yam ku bëgg a raw def lu mbooloo mépp naa jafe na lagal wey nit balaa jiituy kemam xawa dee xëy jiitu say kemte de wett kat jafe na ku bëgg am lu rafet day muñ te def lu rafet xamal ne kat saxle gàncax goo jafe na nu ñépp def ku ko def doo man lu yam fa ñu yam ku bëgg raw def lu mbooloo mépp naa jafe na lagal wey nit balaa jiituy kemam xaw dee xëy jiitu say kem te deewoo wett kat jafe na ku bëgg am lu rafet day muñ def lu rafet xamal ne kat saxle gàncax goo jiwul jafe na nu ñépp def ku ko def doo man lu yam fa ñu yam ku bëgg a raw def lu mbooloo mépp naa jafe na lagal te wey nit balaa jiituy kemam xaw a dee xëy jiitu say kem deewoo wett kat jafe na ku bëgg am lu rafet day muñ te def lu rafet xamal ne kat saxle gàncax goo jafe na nu ñépp def ku ko def doo man lu yam fa ñu yam ku bëgg a raw def lu mbooloo mépp naa jafe na